sëriñ bi xaada lahu allahu maxtaar lahu bi mu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na man jàmm yàlla subhanahu wa taala bi nga xam ni daa jàq lool ngir ay bakaaram tudd muhammad sàll maay liwaayu ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mohamadou sàll googu ma wax nag turu sëriñ bi la waaye ci turu yàgg yi la bokk tey sant yàlla mi dig leen ñu koy ñaan ndax moo ni uduuni astajib lakum ba tey tëkku na ku ko dul jaamu ngir rëy ci sawara ndax moo ni inna lasina yastakbiruuna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin maa ngi koy ñaan nag waxtu nekk muy julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama li feeg seeni duus ñi ngi dalante li feeg xajkat yi ñi ngi wër kaaba gi moom yonente bi am ni moo rañaanoon ba weesu juróom ñaari asamaan te moo wax ni ñaan mooy ngànnaayul ab jullit ginnaaw loolu daa am ci mbokk yi ku sàkku ci man ma bindal ko ak ñaan ngir mu jariñu ci sàkku xam-xam loolu moo tax ma daldi jug tey sàkku ndimbal ci yàlla subhanahu wa taala borom aras fas yéene tudd li ma gis ci téere mag ñi insha allahu taala ku ñuy wax saïd radiallahu taala anhu nee na yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama nee na ku ragal fàtte xam-xam wala alquran boo dee tàmbali am njàng da ngay wax lii allahuma nawir bi kitaabika xalbi washrah bihi sadri wa atliq bihi lisaani واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنك لا حول ولا قوة إلا بك batay bokk na ci lii leeral ab xol لي ma gis ci mbindum alxaaj muhammad sibtiyu radiallahu taala anhu mi اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وزين المرسلين الأحيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار عدد ما نسل من أول الدنيا إلى آخرها من خطر الأمطار وهذا ما خرج من الأرض من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار القفار باتاي بوكنا سي لي نوي بن غير مانا موكال لي ابن عباس وخ رضي الله تعالى عنه نينا يونت صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم نينا سيدنا جبريل عليه السلام مو نيو سي مان نيما képp ku mokkal jafe na bind tur yi ci am ndab lu set di ko mar bu xëyee waaye ndab la bu ko bindee da koy fanaanal ci biti bu xëyee mar ko lu ma ñetti fan yu tegaloo la koy def lépp lu mu déggati dana ko mokkal insha allahu taala sayiduna aliyu karama allahu wajhahu nee na def naa ko waaye boowee ba tey dégguma dara fàtte ko mi ngi nii قل أعوذ برب الفلق من شر شاهق إذا شاق وأعوذ برب الفلق من شر طارق إذا طرق وأعوذ برب الفلق من شر الليل خاسق إذا وقب وأعوذ برب الفلق من شر النفاثات في العقد وأعوذ برب الفلق من شر القتل وأعوذ برب الفلق من شر الجن والإنس باتاي بوكو bokk na ci li ñuy jàng ngir dundal ab lii ñu jële ci kenn ci wàllu te mooy di wax yaa xayu yaa xayuumu laa ilaha illa ant juróom-ñaar fukki yoon ku ko saxal sunu boroom dana dundandal ab xolam loolu yi mooy li ma doon a sàkku mat na yow sama mbokk farlul sa kem kàttan di ko jàng di xalaat maxnaa yi yàl na yàlla subhaanu wa taala ubbi sunuy xol awale nu ci yoonu njub may nu wërsëg wa mu mayoon maam ya ci daraja yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wasallam yal na ma yàlla jéggal ak képp kuy jàng lii ak ku ko ak ku ko te gërëm ko yal na yàlla may jàmm képp ku jub allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu mi ci diwaanu fathul wahaabil alkarim ci xatu juróom fukk ak ñaar sëriñ bi xaadalawoo laaw maxtaaralawoo nee na maa ngi lay la biir yow ak say nit képp ku gis xaraf yi wala mu gis yeneen xaraf yoo xam ni ci xaraf yi lañu ko toxale yowmal xiyaam bu yërmande yàlla subhaanahu wa taala wéyee dara du fa jariñ lu dul jëf ju yiw jëf ju yiw bala ko yalla nangu day andak ragal yalla subhanahu wa ta'ala ragal yalla subhanahu wa ta'ala modi moyto merlo yalla subhanahu wa ta'ala ci jëf ben bakar ak di moyto merlo minde fi ci di len togn kep ku togn boromam te tubu ko da koy delo lamu jëfon yalla ñu ci mucc kep ku togn moromam te jéggalu ko ko dañuy jël ci ay jëfam yu yiw jox ko sunu borom neena انما يتقبل الله من المتقين ني مارغا لاي نانغول سيني جف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لول نين تي خاتو جوروم فوك اك نيت تي ديوانو فتح الوهاب الكريم والله اعلم سرين بي قاد له الله مختار له نينا يومي لغيال يونت بي صلى الله تعالى عليه باله وصحبه وسلم may xamal jullit yépp ñi dund ak ñi faatu mi maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala ndax amuma haajo ci lu dul yàlla tànnal maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala te moom ko baax la mu musal ma musal ku sax dàkk wattu itam képp ko aju ci man ci njaboot gi ak mbooleem mbàccar yi ak lépp lu mu ma tànnal ci adduna ak fa nu jëm yàlla na ma def madib jaamam di ab xaritam di ab soppeem te doon kay liggéeyal yonente bi sallallahu taala alli bi alihi wa di ab xaritam ci lu dul benn nax-nax wala lor wala luy naqari wala ak waru te loolu sax dàkk maa ngi koy ñaan mu dox sama digganteeg képp ku ma bëggul ci àdduna ak alaxira amin ya rabbal alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lol mi ci xatu juroom fukk ba tey ak ñeent ci diwaanu fatul wahabil karim wallahu aalam sëriñ bi xaada lawo law maxtaara lawo nee na ni ngeen xam ni tere naa képp ku aju ci man muy jox jigéen lu ëpp ñaari téeméer ci ak can bu dee koo xam ni am na alal bu dee amul alal bu mu weesu téeméer ak juróom fukk képp ku bëgg bàkke ak njariñ yemal ci ñaari lim yooyu ma wax ku leen weesu na xam ni ku def la ko neex dajeeg lu ko na neexul goro yi itam bu ñu tee jigéen yi di wax naan joxu ko lu mat wala ñu naan ab xaalis la koy jox ndax mën na noo joxe ba tey lu dul xaalis lu mel ni ak jur waaye bu boobaa ña koy xayma du doon boroom kër ba du doon goro ya ay jaamur yu maanu ñoo koy xayma su ko defee borom kër ba nag wëtt jëlaat senn soxna te joxewul cenug jigéen ji doonte soxnas ñeenteel la wassalaam loolu mi ci xatu juróom fukk ak juróom ci diwaanu fathul wahabil karim wallahu aalam sëriñ bi xaadaloo law maxtaarloo nee na boo bëggee jàng alxuraan da ngay yéene génn ci lépp loo xam ni sunu borom tànnalu la ko te dugg ca lam la tànnal boo dee jàng ak xasiidaam ci sama xasaa idi fas ci lépp loo bëgg da nga ko am insha allah taala bu fekkee la ma bind la ba ma jugee jolof wala ca an moomee laata ma fay juge xasaayit yi leen jiitu moom déedéet boo dee tàmbali werdu da nga cee fas yàlla subhanahu taala jariñ la ci adduna ak alaxira musal la ci lori adduna ak alaxira may la ak jige gu lay jariñ te du la lor ak jige yonente bi alayhi salaatu wassalaam jige gu lay jariñ te du la lor boo dee naafile danga cay fas dundal sunnas yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salam te jàng ci saar yi gàtt yi yu la neex loolu miñ ci xatu juróom fukk ba tey ak juróom benn ci diwaan boobu sëriñ ngoone jeng radiallahu taala anhu la doon waxal sëriñ bi xaadalawo law maxtaar lawoo nee na yow muri saadix bi ibrahim maa ngi lay nuyu ma leen bi xamal ni loolee ma leen doon dikk tàmbali naa ko te mooy taalif yooyu nga xam ni dana teel seeni bakkan insha allahu taala maa ngi digal ñu yor mindi mii ñu deel si fi yow te ning ma dénkaane boo bii ma la jox dama koo bind ngir ngeen xam ni tàmbali naa bu neexee yàlla subhanahu wa taala danaa leen saafara ci tawat yépp yu feeñ ak yu nëbb yi su ko defee tuwéere yooyu ma doon wax ngeen indi ko ci kër gi for leen ko bàyyi foofa léegi wassalaam loolu mi ci xatu juróom ñett fukk ak ñeent ci diiwaanu fathil wahaabil karim wallahu aalam sëriñ bi xaada lahoo maxtaara lahoo bi mu musloo ci seytaane tàmbali ci turu boroomam nee loolu ngay laaj naan nun ñépp danoo bëgg nga leer lan lan mooy sóobu ak lan mooy yoon wi la gënoon rafet mooy nga laaj lan mooy dëgg-dëgg imaan ak lislaam ak ihsaan ndax mu kàllaf mu nekk xam dëgg-dëgg yi moo ñor ci moom mu leen di jéggi di jëm ci yoo xam ni menn mu kàllaf foonul seenu xet ci jamono ji wala néew la lool ba tey loolu ngay laaj maa ngi lay xamal ni man maa ngi ci xaqiiqa ak sharia sharia mooy li nekk ci téere wàcc haqiqa mooy li nek nekk ci aluwa allawhul mahfus moo xam ñëw na ci téere yi wala déet li leen yàlla subhanahu wa taala digal ak yonante bi sallallahu taala alayhi wasallam man mi ma di leen ko digal moo di jàpp ci sharia te mooy sunna su yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wasabi wa sallama ëpp ku topp loolu boppam la koy defal ku ko deful itam noonu ndigal yi ñett la ba ca jiitu mooy ndigal lu jóge ci yàlla subhanahu wa taala ak ndigal lu jóge ci ko xam yàlla subhanahu wa taala ak ndigal lu jóge ci ku xamul yàlla subhanahu wa taala sa ku ko xam sunu borom dalay digal ngir jariñ la di la tere ngir musal la ki xam yàlla subhanahu wa taala dalay digal ngir ngeen ànd jariñu di la tere ngir ngeen ànd mucc ki xamul yàlla subhanahu wa taala sakku koo xam dalay digal ngir mën a jariñu di la tere ngir bañ a loru nit ñi ñaari xaaj lañu kuy roy ak kuy toppandoo kuy roy du wuuteeg kamuy roy ci dara ndax ñoom ñaar ñépp dañuy gis ki muy roy day gis ci ay bëtam lépp lu feeñ di gis ci ab xolam lépp lu nëbbu képp kuy digle ci bakkanam nag dee su kuy toppandoo bu fekkee kamuy toppandoo ku mucc la a ah, dana mucc bu dajeeg boroomam sariixa nag mucc na ci biddaay yépp naka noonu xaqiiqa ja jugee ca lawhul mahsuus waaye nit ñëpp maase wu ñu yem ci xam dëgg-dëgg loolu loolu mooy tontu yi ab xol mooy gëm ay cër ñooy topp rafetal ci lépp lay nekk su defee li ngeen war a def yéen ñëpp mooy sàmmoonteeg li ci téere tawxiid yi ak téere fiqhu yi ak téere tasuuf yi bañ a jëm ci mbiri boroom jagle yi ñooñu nga xam ni seen boroom da leen di digal lu mu xaraamal ci kaneen naka noonu di xaraamal mu daganal ci ñeneen subhaana rabbika rabbil xissati amaa yasifuun wa salaamun ala al walhamdulillahi rabbil alamin loolu mi ci xatu juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci diiwaan boobu ba tey wallahu aalam bismillahi arrahmaani rahim ngi ci garabu tuuba ci xaaju juróom-ñetteel sëriñ bi xayaada la woo laawu maxtaara la woo bi mu santee yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu taala xalay bi alihi wa sabi wa salama nee na yow mbokk mu laabir mi tey sam ab soppe da nga may laaj yu bëri yu la lënt ba ci njëkk mooy ndax jëfandikoo ñam yi ñuy jaay ci jay muy marché yi dagan na wala déet dama lay tontu moo di dagan na waaye sàmmonte gi gën a mat mooy moytu ko ndax li ñuy jige sobe ak wor tey sori tudd yàlla subhanahu wa taala naka noonu bëti faqir yi cee dal te duñu mën a am lu ñu ko jënde su ko defee jur lor te loolu mooy waral barke bi dem lii mi ngi ci téere bi ñuy wax taalimul mutaallim bu azarnu jiyu rahimahullahu taala ba tey wax na fa ku ñuy wax mohamadu bnu fadli rahimahullahu taala ba muy jàng xam-xam daawul jëfandikoo lekk yi ñuy jaay ci jay baayam moo ko daan defaral ay ñam di ko ko yët bisub ak juma ba benn bis mburu mi ñu jaay ci jay mu gis ko ci néegam mu mera ko ba waxut ak moom mu ni ko man ji ko te bëgguma ko waaye kii ma bokkal néeg moo ko fi andi baayam ni ko boo doon sàmmonte kii du la ñime ba di ko andi ci yow noni la mag ñandaan sàmmonte ba sunu borom mbayleem xam-xam yu bari seeni tur nekk luy des ba yowmal xiyaam al imaamu xasali rahimahullahu taala wax na ci ixya ulumu ddin ni ibrahima annaqa anyo nee na lekk ci ab ja ak suufe la ni mu waxe sax loolu ci yonante bi la juge salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama am na lu safaanoog loolu loo xam ne ibnu omar radiallahu taala anhuma moo ko wax nee na ci jamono yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wasalama daananu lekk di dox di naan di taxaw am na ci sëriñu tasuuf yi ku ñu mas gis muy lekk ci jay ñu ni ko lu tax mu ni duma xiif ci ab ja di lekke ci sama néeg ñu ni ko dangay dugg ci biir jàkka ji mu ni dama rus dugg ci néegub yàlla subhanahu wa taala ngir lekk xëy na loolu mu def da ciy jublu toroxlu ak bañ a toggoo dara ngir nit ñi su ko defee loolu lu rafet lay doon ci moom waaye am na ñoo xam ni ñàkk looy rus lay doon ci ñoom ci kem nit ñi ak xaada yi ak jamono yi la wuute gi di nekk ba tey nee na ab tooñkat kenn wëtta lekk ci aw ñamam képp ku ci mënta ñàkk del lekk lu yam tey bañ a laal la gën a neex am na ko mas a wax waaye ni ko moto séeréer ndax gis naa la ngay lekk ca ñamu buur mu ni ko dañ maa manante mu ni ko ma gis la ngay tibb tibb yu rëy di laal la gën a neex bu fekkoon dañu laa mënante doo def loolu buur bi wax kookee ni ko yawit fàwwu nga lekk booba mooy séddale asaka yi mu ni ko mën naa lekk waaye kon damay bàyyi lii may def wala may def lii may def te bañ a lekk mu dóor koo bàyyi ndax mënu koo ñàkk ba tey nee na su nuuni al misri yu bañ ko tëjee am na ay fan lekkul am soxna su baax su ko yónnee aw ñam lekku ko mu ni ko lew na doom mu ni ko waaye daa jare ci loxoy ab tooñkat loolu mooy day tolub sàmmonte salaajum ñaareel mooy ndax jaay li ñuy toxe ngir lor dagan na li ma lay tontu mooy loolu bëri na lool ay wuute lu mat fanweeri taalif am nañu ci diggante ku koy daganal ak ku koy xaraamal waaye man duma ko ŋàññi duma ko tagg sunu boroom nee na bul xeeñtu loo amul xam-xam salaajum ñetteel moo di ndax denc jigéen ju masa njaalo dagan na ci góor gu mësuta njaalo wala déet li ma lay tontu moo di dañu ko sib loolu la xalil wax rahimahullahu taala am na kuy leeral waxam jooju ni bu fekkee daa ci njaalo ndax imaamu malik radiallahu taala anhu nee na bëgguma koy denc jigéen juy fésal lu bon waaye gisuma ne xaraam na ba tey ñëw na ci an nawaadir jigéen ju saay saay dañuy moytu muy nàmpal ay xale kon denc ko nu muy mën a amee waaye jigéen joo xam ni daañu yàlla benn yoon manees na koo denc ginnaaw boo ko seetloo ba xam ne ëmbul moo xam ki ko njaalo moo koy takk walla kaneen loo loolu mi ngi ci atolxiin ak ci feneen xattaadatu ak ahmadu nee bu tuube manes na ko denc bu tu desu ko man ibnu habib nee deganul ci kenn muy denc jigen juy fesal lu bon alla yu tudd loolu ci téere bu ñuy wax al muyassar am na ci ci téere tafsiri yi boo xam ni aaya bi muy azani la yankixu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankixuha illa zanin aw mushrik wa xurrima daalika alal moomin nii la ko firee dani góor gu bon goo xam ni ñaalo mooy mbiram du bëgg a denc jigéen ju baax ka muy bëgg mooy ku benn ku mel ni moom naka noonu jigéen ju bon joo xam ni njaalo mooy mbiram du bëgg a ànd ak góor gu yiw gu baax ka muy bëgg mooy ku bon ku mel ni moom wala kuy bokkaale yàlla subhaanahu wa taala kon day mel ni dañuy soriloo takk jigéen juy njaalo ndax njaalo ak bokkaale suréewuñu ak bon naka noonu gëm ak fegu ak a ak maanu suréewuñu ak baax mu ngi mel ni li muy wax naan alxabisaatu lil xabisiin jigéen ñu bon góor ñu boñ lañuy àndal am na ko wax ni denc jigéen juy njaalo xaraamoon na ca tàmbuli lislaam ginnaaw bi lañu ko folli ci aaya bi muy wax ankixu al ayaama minkum am na ñu wax ni sunu borom daa bëgg a wax ni góor gudul njaalo day seexlu jigéen juy njaalo naka noonu jigéen judul njaalo day seexlu góor guy njaalo mas nañoo laaj yonente bi salallahu taala alay bi alihi wa sahbihi wa sallama koo xam ni daa njaalo jigéen ba noppi takk ko mu ni njëlbeen gi njaalo la waaye mujj gi ak denc la salaajum ñetteel mooy ndax xool payum jigéen dagan na ci boroom këram ak laal ko naka noonu ci moom jigéen ji wala déet li ma lay tontu moo di dagan na waaye doonu lëggana yay ndax sayidatuna aisha radiallahu taala anha nee na musumaa gis loolu ci yonante bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama musu koo gis ci man ku ñuy wax zarruux radiallahu taala anu nee na loolu li tax ñu koy sib day lor ab gis di waral doom ja néew kersa wallahu aalam baroom annasiha nee na sim nañu koy xool payum soxnaam ndax day lor ci bët yi di néewal kersa te mën naa gis lu mu ca bëggul mu waral ak bañante sayidatuna na radiallahu taala anhu nee na mësumaa gis loolu ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa mësu koo gis ci man te daanañu bokk di sangu ci benn ndab ku nekk di tànk xalil rahimahullahu taala nee na dagan na ci ku nekk ci ñoom ñaar mu xool léppi moroomam ba ca pay ma am na ko wax ni ginnaaw ga bokku ca lii ak mottalil ku gi yete boroom xam-xam yi nee nañu sim nañu kuy joteeg soxnaam te am kaneen ku nekk ca néeg ba moo xam gone la wala mag wala muy nelaw wala nelawul am na ñu ni dañu koy tere te mooy jubluk àlla xamiyu bu fekkee boo koy génnee da nga cay am coona ndax benn néeg nga am kon da ngay wut looy doxale sa digg moom tey moytu muy dégg sa kàddu ibnu aradun moo ko wax nee na itam boo dee joteeg moom war nga ko waajal bañ a jekki-jekki di sëyeg moom te waxtaanoog moom foox ak moom di ko laal di ko fóon ba xelam jëm ci li ngay def mu amuk sawar itam ndax moom jigéen gi daa am xàq ci yow war nga koo jox xaqam ba mu mat ndax li ngay bëgg ci moom lay bëgg ci yow su ko defee boo fajee sa aajo te fajul aajoom ci yow mooy waral muy xemmem ganeen ku dul yow ba tey boo dee jëm ci moom dee ci am pas-pas bu yéenee taxaw ci xaqam ak tàbbal mbégte ci moom ak faj xaajoom te ñaan sunu boroom defal la ca ndimbal te musal la boo dee def lii ma wax te mooy sunna mooy waral doom jooja day am xel nekk ku yiw ku rafet ndax am xel akub ñi ngi jóge ci barkeb sunna réer akuk ñaaw ñi ngi jóge ci mbugalum bidaa lii mi ngi ci al muyassar bu addaymaaniyu rahimahullahu taala al imaamul xasaaliyu radiallahu taala anhu wax na ci ixyaa diin ñu sopp nañu kuy booloog soxnaam mu wax bismillahi jàng xul wallahu ahad benn الله wax لا akbar la ilaha illallah الله العلي alazim اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من سلبي يونت بي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم نينا كوي بولوك سخنام وخ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رسختنا بوتا أمي دوم سيتاني دو كولور su ko defee boo dee bëgg wàcce ndox ma waxal ci sam xel te bul yëngal saytuñ lii alhamdulillahi la si xalaxa min almaai basara fa jaalahu nasaban wa sihra wa kaana rabbuka xadira te bañ a jublu xibla ngir màggal ko te muur sa bopp yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa da daan muuru boppam gëmmu di wax soxna si àndal ak dal yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam neena kep kuy bolo ak soxnam bu mu ko def ni mbam yi di def nay jital waxtaan ak foon ak ñewantu ba tay neena yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam neena kuy bolo ak soxnam bu mu ko defé ni bayyi may di def waye na am ndaw lu muy yabal ñu ni ko lan moy ndaw li mu ni foon ak waxtaan yonente bi sallallahu taala ali bi ali wa wa sallama nee na am na ñett yoo xam ni ak tële la ci góor ba ca njëkk mooy mu tasee ku mu bëgg a xam te xamul aw turam aku santam aku askanam ba teqalikoog moom ba ca njëkk mooy mu tasee ku mu bëgg a xam te xamul aw turam aku askanam ba teqalikoog moom wala muy delloo tiraangay ku ko teral ci dara wala muy booloog soxnaam te du jiital waxtaan faj aajoom te xaajooy soxnaam du faju sim nañu booloo ci guddi gi njëkk ci weer wi ak gi ci digg bi ak gi ci mujj nee nañu seytaane day teewal kuy booloo ci guddi yooyu am na ñu wax ni seytaane yi ñoo ciy booloo sayiduna aliyu ak muawiya ak abu hurayra radiallahu taala anhu sim nañu ko am na ci boroom xam-xam yi ku sopp booloo ci guddik ajjuma ak bëccëg ngir mën a am li yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wax nee na yàll na yàlla yërëm ku sangu bisub aljuma bu fekkee danga booloo ba noppi bëgg a booloowaat dangay raxas sa sàkkara doora a booloowaat bu fekkee danga gént bul booloo mukk te tuuroo ndox raxas sa sàkkara sim nañu booloo ci tàmbali guddi gi ndax dañuy bañ nelaw te doo yorug laab bu fekkee danga sanguwul boo bëggee lekk wala nga naan dangay jàpp ba noppi loolu sunna la ibnu omar radiallahu taala anhu nee na mas na maa wax yonante bi sallallahu taala alayhi bi ndax mën na noo nelaw te amee janaba mu ni waaw waaye boo jàppoo moo gën sayidatuna aisha radiallahu taala anhu nee na yonante bi sallallahu taala alayhi bi ali wasa bi wasalama daana noppi nelaw te du laal ndox sopp nañu boo dee tëdd ginnaaw booloo nga faxas sab lal bu baax door tëdd lii ak xamle la boo ko manee boo amee jana ba te sanguwoo bul watu bul lewwi aw we bul génne deret am na ku wax ni kawar gu nekk dalay laaj ak setam ci jana janaba atibriisiyu radiallahu taala anhu wax na ci makaarimul laax ni am na ku doon dénk waay ni ko bul booloo sa toxna ci tàmbulig weer wi ak digg bi ak mujj gi dana waral dof ak gaana ak xayib ca doom ja bul booloo ginnaaw tisbaar dana waral boo ca amee doom ay bëtam jël te seytaane day bég ci nit koo xam ni daa jël bul wax boo dee booloo dana waral boo ca amee doom du mën a wax bul xool payum sa soxna dana waral boo ca amee doom mu gumba boo dee booloo na nga yoru sagar sa soxna yoru sagar waaye bu leen bokk wenn sagar di ci fomp loolu day waral ak bañante ak noonoo loolu miñ ci xatu juróom ñeen fukk ak juróom ñett ci diwaanu fathil wahab al karim wallahu aalam sëriñ tuubaa xaada laho llahu maxtaara laho ku ñuy wax abdulatif lay waxal lii képp ku ma dikkal ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala danaa farlu ci mbiram doonte jàpp na ni dama koo fàtte wala dama koo sàggane waaye farlu niti yàlla yi subhanahu wa taala ku leen xamul da koy jàppe ak sàggan akuk fàtte ndax ay mbóot lay doon seen digganteeg seen boroom aaya bi dana yeete ci loolu wataral jibaala tahsibuha jaamida wa hiya tamurru mara sahaab loolu min ci xatu juróom ñeen fukk ak juróom ñett ci diwaanu fathil wahaabil karim wallahu aalam sëriñ bi xaada lawoo laaw maxtaar lawoo bi mu nuyoo moom abdulatif lii la ko wax li ngay wax naan ab dog manees na koo def ci mujj guddi gi mu gën wala mënta waxtu julli tàbbi li may tontu moo di muxtaarum wirdu mi ngi tàmbulee ci njël ba jant bi génn ba tey li ngay laaj ndax manees na cee dugal wax ju néew wala déet ni ma koy dégge li ma lay tontu moo di wax ci biir aw wirdu dee su ko def ludul xitte ju ñor li ngay laaj ndax jublu xibla boo ko manee mënta ñàkk wala déet li ma lay tontu moo di jublu penku ci teggini werdu la bokk ak sikkar yépp li ngay laaj ndax ni mu nekkee ci minni mi rek lañu koy jànge am manees na koo tegalee neneen boo juumee te du tee mu wér li ma lay tontu moo di tegale wedd wi ni ñu ko bindee mooy li ñuy sàkku ci yéen képp ku ko defewul noonu na ko baamu loolu mi ngi ci xatu juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci diiwaanu fatxul wahaab alkarim wallahu alam sëriñ bi xaadalahoo laaw maxtaara lahoo bi mu jullee ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi nee na lii ak laabiir gu jëm ci mbooleem jullit yu góor yi ak yu jigéen yi képp ku gëm yàlla subhaanahu wa ak bis pénc wax aw yiw wala nga noppi maa ngi ñaan sunu borom nangul ma te jariñ ñu bari ci sama mbind yàlla nañ ca bokk su ko defee loolu nga xam ni yonente bi sallallahu taala alay bi alihi wa sahbi wa salama moo ko wax def na ci dégge ni képp ku gëm yàlla subhanahu wa taala ak bis boobee nga xam ni gone dañuy bijjaaw faw faw ngay bëril jëf ju yiw di moytu aw ay képp ku dul bëril aw yiw di moytu aw aw aw ay gëmul yàlla subhaanahu wa taala gëmul itam bis boobee nga xam ni ci la ñépp di gis seenu pay ndax gëm yàlla subhaanahu wa taala daa woote topp ay ndigal bàyyi ay tereem gëm bis pénc daa woote saxal aw yiw waxtu wu nekk aw yiw mooy yoonu àjjana tépp ko xam ni lii mu nekk aw yiw la na xam ni mi ngi ci yoonu àjjana li feeg bàyyiwu ko képp ku xam ni lii mu nekk du aw yiw na ko wóor ni mi ngi ci yoonu sawara am na bayit yu ma waxoon ci lu mel nii dama ni képp kuy sikk sàkkani yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi jaamub yàlla la subhaanahu tey ndawam xamal ni amul benn sikk sàkka ci ni ab jaamam la tey ndawam képp ku bañ diineem tàbbi sawara képp ku koy sikk dootoo nekk kuy xéewlu ci ay xéewalam yéen nit ñi jaamu leen seen boroom tey taqoo lu baax tey moytu lu bon kon du ngeen tanawu ci seenum njaay bu ngeen ko deful du ngeen tonawu du ngeen jub nanu yàlla subhanahu wa taala boole ci ñi nga xam ni jub nañu di jubal ci daraja yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam loolu mi ci xatu téeméer ak benn ci diiwaanu fathil wahaabil karim